sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu itam mboolem waa presse bi nga xam ne fekk nañ leen fii suñu borom nag dafa dogal tey ñu jaar fii ci Darou Mouhty fekk ñu ngi bàyyi ko ci leen di dëkkub sëriñ Moustapha moom seex Cheikh Sidil Mokhtar moom Cheikh Mamadou lamin Baara mi nga xam ne tey mooy xalifa Serigne Baara ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér. Euh, yàlla dogal nag ñu jàpp datu sarsaara te mooy ziar bi nga xam ne moom la ñuy ziar barab bi sëriñ bi nekkoon ca gànnaar euh, at moom jot nag dafa am ku ñuy darajaale bis bi ren nañu dala jaare ko Cheikh Mamadou Lamine Baara démb nag demoon ci sëriñ Sidi mu Cheikh Mahamadul Mourtada ànd ak sunu gan yu baax yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo Nouakchott ñëw fii ànd ak mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mii di senegal ngir waajal bisu Sarsara ak yëgle ko muy sëriñ Mbacke Mbay mi nga xam ne moo fi teewal euh, jëwriñ sëñ ma Diop ak sëriñ Abdou Aziz mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci relation extérieure bi nu ñëwee nag euh, sëriñ bi boole ñu ak ñoom ñu feggoo nii ak euh, suñuy jëwriñ di sëriñ Ali Ba mi nga xam ne mooy secretaire général bi waaye itam feggoo ak euh, sëriñ Ali Diop mi nga xam ne mooy adjoint bi waaye itam feggoo ak suñu waajur di bàyyi fàllu kase mi nga xam ne moo nekkal kuréelu sarsaara yi fële ca diaspora ba ci bitim réew moom itam ñu di ko sant baax di ko gërëm feggoo tam ak sunu waajur di bàyyi alaaji sëy moom itam muy mag moo xam ne yàgg naa dem sarsaara bëgg lool liggéey bi ah, liggéey boobu ñu doxee woon nag muy ndigal wax dëgg yàlla bi ñu demee ci sëriñ Moustapha ah, xamle na ne bis bi ñor na ko lool te dina ko jàpp jàppin woo xam ne dana ko ànd ak njabootu sëñ baara gépp te fas na yéen itam képp koo xamante ne bi ku yaakaar sëriñ baara la bis boobee nga jox ko itte te dem ca ndax sëriñ si di daa wax ne moom dafa yor ndonoli di ko téel njabootu sëriñ Touba gi waaye njabootu sëriñ Touba gépp ñoo bokk Sarsara ndax sunu yaakaar Cheikhul Khadim moo fa nekkoon liggéey fa liggéey bu tedd boo xam ne liggéey boobu jullit ñëpp jariñoo na ci ñaari réew itam nekk ñaari réew yoo xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sëñ bi gànnaar mi ngi ko daan wooyee ardu saalihiin suufu gaa yu baax yi kon barab bu ñoroon sëriñ bi la nag sëriñ Moustapha nee na sant na bokki taalibe yëpp te fas na ko yéenee ànd ak njabootu sëñ baara gépp sant na bu baax tam sëñ Sidi mu sëriñ Mourtala ndax sëriñ Sidi dafa njëkku na ànd ak délégation dem fa waxtaan ak moom tey jii mu yebalaat délégation nee na nag loolu da koo wan ne ko sëñ siidi cër bi mu ko jox bàyyee na ko lépp moom itam fas na ko yéenee ànd ak moom ba mu jeex loolu moo nekkoon yoon wi nga xam ne moom la ñu doxe woon sëriñ Sidi itam xamal ñu ne na ngeen jaar ci mbooleem kuñ mës a tudde Sarsara ndax xam ngeen ne Sarsara tudde nañ ko maam Cheikh Ibrahima Fall tuddee nañ ko borom daaru borom dëkk bii tuddee na ko ma Massamba tuddee nañ ko Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo njëkk a wutu Serigne Touba daaw ñu tuddee ko Cheikh Mamadou Fadal ren ñu tuddee ko Cheikh Mamadou min Baara kon nag nee na ñooñu ñëpp nañ dem ci seen njaboot xamal leen ne duñ leen tuddee bis bi mu weesu rek ñu fàtte leen waaye ba tey ci liggéey boobu lañ bokk ñu ngi leen ci woo kon nag addina bi yëpp képp koo xam ne kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ñu ngi lay yëgal Sarsara jàpp nañ ko incha allah le 25 avril moom la ñu war a dem Sarsara incha allah euh, xam naa nag jiitu cinq la délégation yu Sénégal yi di départ jombul le 22 jàpp le 23 délégation yëpp danañ fas yéene incha allah ànd dem Sarsara yéen presse bi tam ñu ngi leen koy yëgal te di leen sant di leen gërëm ndax da ngeen bokk ci liggéey bi ndax liggéey bi gat su fekkoonte ne euh, ñun kese la te amuñ ñu mel li yéen ñu jàppale bañ man koo siiwal ci àddina bi kon ñëpp duñ ci jot te bëgg nañ ñëpp jot ci ndax sëñ Saliou dane woon ko leeroon ne ñëpp dem nañ xel kom dootu ko woote daa la ñu fay jëlee sëñ Sidi mu sëñ Murtala tam nee na su ko leeroon na ñëpp dem nañ Sarsara dootu ko woote ndax sëñ Touba moo wax ne inna allazina ila Sarsara xat xasadu ziyaarati faaraqu daarin aw saara loolu nag yéene na ko ñëpp kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na suñu àgg nañ ci bis jàmm ci barkeb sëriñ Touba jërë ngeen jëf sant nañ baax